na ñu wax ci leneen na jëm ci ivoirien bi le di fëna ci fàttali nag fëna borom kër borom kër la woon ci actrice bile di Rita Ora ñu ràññee woon ko loolu nag ci série bile le di Karma ginnaaw nag défaite bi nga xam ne rek démb Sénégal am na ko ci diggante mag équipe bi le di Côte d'Ivoire ci huitième de finale yi moom mi le nag di fëna ab poste daal la daa di def ne daal jë na ma pas le marabout si wax jooju nag mu wax moo metti ñu bëri ba ñu bari rek daal di cay bu amee nag ñu bari ñoo xam ne rekk gis nañu ay kàddu yu ñàkk teggin la wa ilaa sax ay kàddu yu ñàkk warma la ñeneen ña ca des rekk gis ni daal ab gaaruwaale la boo xam ne rek da koo jëmale ci soxnam si woon di Rita Xora